ayca niñ leen ko diggee woon ci ndoxteelu émission bi bàjjenu gox teew na ñu fas yéene waxtaanee euh, Covid bi xayma yi lim bi euh, defe naa ne fàttali ne euh, tey bu ñu xoolaatee chiffres yi dellu at ci ginnaaw sa àdduna day tukki. sa àdduna day tukki astuben gis ni tey la duggoon ci réew mi ñaari fan ci weeru mars ñu ne premier cas ci Sénégal mu nekkoon atum 2020 man nag daf ma marqué jour boobu lu tax ma marqué ma Chérif Diami dina ci bokk <laughs> ndax yaa ngi fàttaliku ci laa jógee woon congé ah woon congé ñëw le 2 mars reprendre la nga ma ñëw le 2 mars ñu ne premier cas nga ne ma fàttali ne yow de yow sa congé bi moom musiba naaru laay la salaamaaleykum rek ñu naan cas bu njëkk far yàlla ñu ne ma édition spéciale ma dooree noonu ak covid bi donc man am na lu ma marqué lu bari bari moo tax tey euh, bi mu amee at tamit dañu def taxaw seetlu ci Covid bi euh, Sénégal fi mu ci jaar yëpp. Mhm. Euh, Fatou defe naa ne bu ñuy taxaw di seetlu ci wàllu wér-gu-yaram fow ñu taxaw euh, ci nit ñi ci loolu ñu ci ñàkk seen bakken ñi nga xam ne ñu ngi des ba tey ci lalu hôpital yi. ba tey ñu ngi des ci lalu hôpital yi mu nekk loo xamante ni lu doy waar la. ak it ñi nga xamante ne sax euh, tey jii mënuñoo dugg kër docteur ndax ni ñu ko gisee xam nga ni dem na Covid bi toll na foo xamante ni nii kër docteur yi àttanatuñu ko. ba ñu ngi def ba mujjoon di def loolu ñu naan traitement à ñu koy def ba tey. yaakaar naa ni ñi des également ñi seen bakkan rot tamit ci ci ci ci ci ci mbas mi euh, dañuy wéy di leen di mastawu mbokk yi ndax lu tiis la. ndax bu ñu xoolee euh, pour 2 mars la fi dugg waaye tamit 31 mars ci la Sénégal am euh, deem bu njëkk ak euh, kooku nga xamante ni mooy Pape Pape Diouf nekkoon ancien bu OM. donc euh, ñu ko fàtte daal. <laughs> jërëjëf ki ne mu di xayma boo xamante ni si euh, diis na tiis na tey at ñu koy euh, màggal naam sax xëy na yaakaar mën naa jébbi ak vaccin bi nga xam ne dugg na suñu réew ñenn ñi door di vacciné wu waaye ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi wéy di am jiixi jaaxa di am lu ñu ragal ci vaccin boobu kon mu mel ne jot na ñu gën a ñaax askan wi gën a wax ak askan wi ngir delloo ci seen xel waaye tamit dalal seen xel ci vaccin yooyu la dañ ci ànd ak jàngat beeg ki Kiné dem ñaari fan ci weeru décembre atum 2020 Sénégal bokk ci réew yi mbas mi laal ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars ndeeteel gu njëkk yëf ya door bis bu set ab bilan officiel buy fësal ñaata kaa réew mu Sénégal am si téeméer ak juróom fukki benn test fukk ak ñaar ñoo ñëw positif ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2020 président Macky Sall janoo ak askan wi. ba premier cas coronavirus feeñee ci Sénégal ñaari fan ci weeru mars atum 2020 gouvernement bu Sénégal dafa teg ab stratégie ngir xeex li di mbas mi ñuy ak méngale saa su nekk euh, nga xam ne mooy liggéey bi euh, ci toogaayu jàngoro ji euh, fii ci biir réew mi. fukki fan ak benn ci weeru mai beneenub janoo. carte épidémiologique bu Sénégal dafa wane ni ci ñeent fukk ak juróomi département yi ñaar fukk ak ñaar yi amul benn cas bu Covid 19. gën a ànd akub dal akub teey waaye tamit fexe ba jàngoroy mbas mi ñu xoj ko ba dootu law. departement yu bari ci réewum Sénégal jote ci feebar bi lim gi nag daa jóge ci juróom dem ci fukk mbaa sax fukk ak juróom bis bu set. ñiy faatu yi tamit daan nañu wàññi ñaar jàpp ñetti bis bu ne jàngoro ji nag di gën di doxantu ci biir réew mi système sanitaire bi dem sax ba wane la mën ak la mu mënut askanu Sénégal nag jaaxle lool mujj sax yëkkati kàddu di yuuxu li ko waral seeni yëngu-yëngu lépp taxaw na lañu daan am kas néew ne tekk tekkaaral ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin président Macky Sall dellu janoo ak askan wi bi yoon nag di àddu ci suñu réew nekkoon na ci lépp ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay euh, malade juróom-ñett yi wër euh, amul kenn ku ci ñàkk bakkanam juróom-ñaar fukk ak benn ci euh, malade yi nekk sous traitement. juróom-ñaari fan ci weeru juin atum ay matuwaay ñu jël ko nag ngir féexal ba askan wi mën a rek tàmbale waat seenub liggéey waaye lañu seetlu mooy ak bàyyindiku eh, ci geste barrière yi courbe bi nag naam wàcc na loolu sax taxoon na ba senegal ñu ne ci raw gàddu gi moo ko jël ci Afrique moo nekk ci bopp bi moo nekk ñaareelit ci àdduna bi bu ñu sukkandikoo ci ni muy taxawoo ci wàllug jafe-jafe bii di mbas mi fukki junni ak juróom-benn yu teg juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñetti cas la waññi wàññi juróom-ñaari fan ci weeru décembre ñetti téeméer ak ñeent fukk ñàkk seen bakkan ñu xëy rekk yëf ya yokk ci diggante ñaari fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru décembre. mbooleem diiwaanu Sénégal mbas mi dugg na fa dakaar ak Thiès nag gën a loru ci yëfi bilan officiel bi sax dem ba jéggi dayoo. ñaari téeméer ñetti téeméer jàpp ñeenti téeméer ci cas la ñuy wax bis bu ne. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2021 Sénégal wàññi na lu toll ci fanweeri junni ak ñett ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci cas ñi nga xamante ni ñoom ñoo faatu jóge ci ñetti téeméer ak ñeent fukk dem ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ci diirug weer kepp Sénégal nag fi mu nii ñu ne mu muccul ci ñaareelu vague bii yaakaar képp ñu am ko tey mu jëm ci ñàkk bii nga xamante ne door na naam waaye ñu bari ci askan wi nag ña nga cay am xel ñaar ñu waral sax ñu ne suñu kilifa yi matuwaay yi ñu teg ci wàllu communication nañu ko xoolaat. comme yi ñu ngi fii nag ñëpp dañoo war a bu ñu ñàkkuwul man dinaa jël vaccin yi may ko yeneen pays africain yu ko soxla. jamono ji lu ëpp fanweeri junni ak ñeent ci kaa lañu waññi juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ñàkk nañu seen bakkan ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak lu tekk ñoom ñoo wér ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk la nekk di faj kër docteur waaye ñi ñu jot a ñàkk ëpp nañu ñaar fukki junni ak juróom-ñaar. ayca mu ngoo ko at ginnaaw coronavirus bi mu duggee Sénégal ki ne xayma baa ngi noonu njaaxare mi mu ngi wéy ba tey. mangoog jàkkare bi mi ngi wéy ba tey ni nga ko waxee euh, astumeen muy xayma boo xamante ni euh, xayma bu euh, doy waar la xayma bu doy la waaye tamit du ñu fàtte mesures yi nga xamante ni jël nañ ko bay fii tàmbalee ba tey moo xam mesure yoo xamante ni état d'urgence ma nga ca yenn mesures yoo xamante ne dem nañ ba ci diggante bi également ñu gis ni daal Séné nguur gi jël na matuwaay ci woyofal ko li ko waral bokk na ci askan wi li ñu doon yuuxu ndax seenu koom dellu na gannaaw daanaka la ñu daan am amatuñu ko jafe yoo xamante ni jot nañu koo dund muy jafe-jafe yu metti lim gaa ngi noonu demoon nañ sax ba toll foo xamante ni bu ñu xoolee ci weeru juin benn bés boo xamante ne su ma juumulee ñaar fukki fan ak juróom juróom-ñeent Sénégal daanaka boo xoolee limu ñu amoon bariwul woon. waaye boo xoolee tamit bis boobu amul kenn ku ñàkk seen bakkan waaye tey bu ñu demee ba nga xamante ni fukki nit ak ñaar jàpp fukki nit ak juróom di ñàkk seen bakkan bis bu set kon nga xam ni lim bi jéggi na dayoo. mesures yi état bi jël wax nga ko euh, mu nekk ay batterie de mesures yoo xam te ni ngir xeexoon mbas mi ndax impacté na ci xeex boobu. ndax impacté na ci xeex boobu mën nañu ne waaw waaye tamit mën nañu ne aussi am na lu luñ ci war a renforcer ndax bu ñu xoolee mesures yi nga xamante ne nguur gi jëloon na ko ci ndoxteel li booy xool ci weeru juin xam ngeen ni lool defoon na ay effets yu baax a baax waaye tamit bi ñu demee tamit ba ci diggante bi tamit ñu gis ni. mbas mi kat dama fi nar a yàgg dégg ngeen ko ci kàddu yi Macky sàll nañu jéem a dund ak jàngoro ji te jël suñuy matuwaay tamit bu ñu gisee ni lu bari lu ñu tëjoon ubbi nañu ko dañu gis ni chiffres yi dafa bese woon ba ñu naan est-ce que lii kon jaroon nañu ñu ñuy ñuy tëj ñu gis ni chiffres yi baissé na waaye chiffres yi baissé na teewul askan bi ba léegi ñu bari ñu ngi nekkoon ci la ñu nekk ba tey ndax tey la gën a tar ñu bari du ñu takk masque masque ñu dem ba jëmmi jamono ñu gis nag ni wax dëgg neex yàlla bàyyi ndiku gi est-ce que du moo ñu indil giraawaale gi tamit ak confiance bi nga xamante ne gisoon nañu ko xëy na man ci sama gis-gis ci euh, kilifa yi ndax demoon nañ ba Sénégal xam nga ni ñu ko waxee rek ñu jàpp ni ci Afrique moo jël raw gàddu gi mm. ci monde bi mooy ñaareelu place bi euh, donc am na yoo xamante ne waruñu ci woon sukkandiku waaye tamit beneen mbir dama koy gis ñu waroon ko renforcer tey boo xoolee ñaari diiwaan très muy Dakar ak Thiès ñoom ñoo gën a touché mais Dakar ak Thiès li ko waral xëy na euh, explosion démographie bi la ñuy wax mais beneen biir également bu ñu xoolee ne ñaar yooyu tamit tey ñoo gën a touché man à mon avis aussi waroon nañu xoolaat stratégie yi ni ñu koy tege ni ñu koy tegee naam yi ñuy teg kenn du ko weddi ndax yu baax la moo tax tax xëy na tey Sénégal fa ma waroon yegg ci wàllu dee yeggu fa maanaam waxu duñ waratuñu woon wax sax ay plan stratégique mais dafa waroon nekk ay plan spécifique Mm. ci ci ci yenn diwaan yu mel noonu. waaw maa ngi nuyu di je comme on le dit en français je prends le train en marche. <laughs> di nuyu di nuyu yi di nuyu askan wi man euh, Fatou Kiné dama bëggoon xam deuxième vague bi ñu nekk est-ce que c'était pas prévisible voilà. Euh. nekkul surprise pour suñ suñu dëkk deuxième vague bii ñu dund actuellement. man pour man du surprise ndax xam nga lu tax. Mhm. Euh, bu ko ñenn ñi jàppee surprise aussi réer nañu. ndax boo xoolee mbas mi bi muy door xam nga li ñu doon wax rek Chine mm. réew mu sori la euh, xawoon nañu naagu ba yaakaar ni xëy na feebaru ñooñu la du suñu feebar mm-hmm. te pourtant boobu fi waree dugg dugg na fi deuxième vague bi teg tamit bi ñu xoolee ni réew yi tugal yi tey mm. ñu bari ci réew yooyu dund nañu deuxième vague ba ñuy wax sax ne boo moyul daañu du daañu dund ñetteelu vague kon Sénégal waroon na xaar deuxième vague bi te xam ni dina si waroon na xaar également variant yu yees yooyu te xam ni dina si mm-hmm. mu mel ne kon farki euh, Farkinde defe naa ni xeex bi euh, li ci des dafa mel ne li ci suñu kanam moo ëpp lu ñu romb de. ma lu ñu romb gën a góorgóorlu rek waaye tamit euh, gën a ñaaxaat askan wi ci colinu masque yi waaye tamit gën leen ñaax rek ci wàllub ñàkk bi nga xamante ni jàpp nañ ni moo fi mën a jëlee mbas mi te ñuy ciy am xel ñaar. bind nga ba pare ci plateforme bi. waaw bindu naa ba noppi damay ñàkk ay ca ngoog mu ngoog fat fat ki na dem bàjjenu gox moom pare na ngir joxe loxoom fas yéene ñàkku merci beaucoup mu dellu si woon tey ci euh, covid 19 ak jafe-jafe yi nga xam ne juróon na ko ci wàllu wér-gu-yaram covid 19 googu euh, la ñuy des xoolandi jafe-jafe yi nga xam ne jur na ko ci wàllu koom ak Fat Bintou Konté